ginnaw kaddu yi fi yëkkati woon moom Lamine Bara di directeur général bu SNEIPS di ci tuumaal ministre bu fonction publique maire Mbacké di ko wax jafe-jafe yi am ci état civil bi nekk ci maire Mbacké bool lépp mooma kaddu yooyu Lamine Bara Gaye yëkkati nag ko ginnaaw bi mu ñii nga xamante bi ay conseil municipal lañ gont nañoo jël kaddu gi ki nga xamante bi moom moo di Morane gay Moussa sar ak Ibou Diop ñoo yoroon kaddu gi lañ ko wax moom Lamine Bara Gaye nag nit la koo xamante bi jaxase rek moom moo neex day dem ba mu neex ko mu ñëw Mbacké di def émission ci rajo locale yi di yàq seen der loolu nag may duñ ko ko benn yoon Lamine Bara Gaye moomu nag ñii nga xamante ne bi ay conseil municipal la nekk ci meeru Mbàkke nee nañ ko daal personnel non grata may duñ ko benn yoon muy tegati tànkam ci benn ndaje moo xamante ni bi kon coalition Benno ko Yaakaar moom moo ko organisé ñu déglu moraan Gueye Moussa saar ak Ibou Diop ci micro seen set premier adjoint au maire de la commune de Mbacké su ndaje bi li ko waral tey jii mooy réunion d'urgence la boo xam ne bii am solo wa Mbacké yëpp tey ji ñoo fi muy conseil yi nga xamni ne ñoo nekk ci commune bi ñu dajé di waxtaan li ci li nga xam li 7 septième adjoint au maire bi mi ngi koy wax di yak deru maire bi di yak deru wa Mbacké lolu nak moo tax tey en urgence ñu woté réunion ñepp ñew adjoint maire yi ngi fi tey jii fi toll ba mu des mi nga xam bi mo fi nekkul ñu woné ni nak tey li nga xam li ñi ko doon liggéey te mom mu nekk ci Ndakaaru ñëwul réunion bokkul ci liggéeyu dëkk bi dañuy toog ba dara xew mu doog a ñëw xamul lu dëkk bi dunde mu ñëw fii bëgg a yàq xelu nit ñi bëgg a yàq deru maire bi di yàq sunu der nag ñu itam ñoo tax ñu daje ñun ñëpp wan ni ko li ngay wax yëpp ay fen la. lan la wax. yi muy wax mooy li nga xam ne amut di sos naan maire bi li nga xam ne lii moo fi amoon ci euh, marché bi fi amoon ci état civil bi. loolu ku nekk xam na ni maire prononcé wu lim ci liggéey ak lim ci dox di ci wax ak autorité religieuse di ci wax ak autorité administrative moy mooy ñu defaraat affaire bi parce que lu ko metti la mom dañ ko fee fekk muy ab situation situation bobu mu ci dox ba yalla def na fi mu toll tay léegi tey mu sotti muy di wax naan fi mu marche bobu liñ ci yep moy politique fekki wul marche bi gis mbolo mi taxaw mu won nit ñi fi mu toll nii waa dëkk bee te dekk bi lañ doon wax maire bi ci bopam mom ci bopam mom mo wane ni

li nga xam ni mooy li nga xam ni mooy euh, compte administratif bi ñëpp dañ ko voté à l'unanimité sauf moom parce que dafa génn dem avant ñuy voté kon loolu bu ñu amee mooy liggéeyu maire bi dañ cee ànd ànd nañ ci parce que li muy liggéey ci dëkk bi ak li nga xam ni programme la boo xam mi ngi koy def ci fi mu toll ci voirie bi ci lamp yi ci ndox mi ak lépp li nga xam ne lii mi ngi koy def ci jeunesse bi ci jigéen ñi ak ñëpp li nga xam ne fi mu toll mooy quartier mu gën leen a defaraat problème pavage yi mu taxaw ak projet yi nga xam ni ngi ko war a defaral tey jii muy ci centre commercial muy ci foyer de la femme muy ci croix rouge ak ci maison de la jeunesse ak stade bi nga xam ne fi mu toll nii ñëpp a ngi ko yaakaar jeunesse bépp a ngi koy yaakaar je crois que loolu bu amee ñu ne ab bilan bu normal la am bilan bu positif la am loolu nag bu fekkee am na loo xam ne lii kenn moo jóg jógee Dakar bu réunion amee rek lay ñëw bu am dare mu ñëw wax démarrer kooku je crois que fi mu toll nii ñun war nañ ci mën a ñun nag conseil à l'unanimité taxaw nañ ni wax ni kii dañoo war a arrêté li muy wax pour yàq deru ki nga xam ne mooy suñu njiit di yàq ki nga xam ne koy mooy sunu ministre je crois que duñ ko bàyyi mukk te duñ ko seetaanati hmm? oui amuñu lu ñu seqate moom kooku dañ koo pare persona non grata la parce que tey jii fi mu toll nii du koo xam ne kii kuy defar Mbàkke la du koo xam ne kii contribue la amul ku muy jàppale amul projet bu mu taxawal amul kenn ku muy dimbale directeur la ca ndakaaru na toog ndakaaru du amul kenn ku muy dimbale kon loolu bu amee fi mu toll nii mu bëgg ñoo xajamal suñu liggéey loolu doot ko ñongati mayatuñ ko benn yoon muy ñëw fii di wax loo lu dul noonu la. jeunesse su dëkk bépp oui. jeunesse bi jël décision déclaré mm. parce que li muy wax nii dafa am loo xam ne lii moom citoyen la nekk ci commune Mbacké def fi yàqu fi def fi dara. defarut yàqul parce que moom mokkul mbake kon je crois que fi mu nii yàqul mooy par exemple fi mu toll nii tey jii lu ñuy def àndu ca parce que bu kuy def yaa yàq mais moom moo tax benn la ci defut kon kooku bu mekkee ni li nga xam ne ñun ñu ngi ciy ànd conseil yëpp taxaw di liggéey àndu ci te moom sax li ñuy def parrainé wul dara bi ñuy def parrainage kenn gisu ko bu ñuy def organisation du jëw tey jii li nga xam mooy coalition bi li mu ci war a defu ci dara xanaa ñëw taxaw bu subaa mu dem

dans le but d'apporter une réplique à un camarade dénommé Baragay. bar le réchin, bar le fléon, bar le menteur. En réalité, Bara, depuis un certain temps, nous l'avons vu faire le tour des stations radio, télé, la, presse écrite, en train de dénigrer le seul, la, le seul homme, la seule personne, l'unique responsable qui a fait gagner la coalition Beno Bokoyakar ici dans la commune de en l'occurrence le maire Galoba. Alors, Bara, toujours dans sa logique de mentir, parce que c'est un menteur, il veut chercher à donner une responsabilité au maire dans cette marche qui a été organisée récemment des jeunes euh, Alors, nous tenons juste à éclairer l'opinion que le maire n'a aucune responsabilité pour ce qui est du problème d'état civil. Parce qu'il l'a trouvé sur place et il est en train de faire de son mieux pour qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Parce que le maire est proche de sa population et en tant qu'il y a des mots, lui, il ne va pas dormir et il ne va pas récupérer. Alors, pour ce qui est de ses réalisations, comme vous le savez, le FERA est, est en train de faire un travail remarquable grâce au maire, nous avons pu décrocher l'UCG qui est en train de faire un travail remarquable. Il a doté la municipalité de deux camions de ramassage et un camion de village. Quoi dire que le maire est entré dans un temps record, de damer le pion à tous ses prédécesseurs en termes de réalisation. Alors, nous l'avons aussi entendu dire, puisque, moi je le dis, Barre est dans le coma, pourvu que son sommet profond lui porte des conseils pour que quand il se réveille, que sa conscience s'éveille elle aussi. Parce qu'il dit que le maire n'est pas proche de sa population. Quel mensonge. Le maire est là, il reçoit à la mairie. Beaucoup de personnes le trouvent ici à la mairie. Il reçoit jusqu'à 4 heures du matin chez lui. Un maire qui partage le thé avec ses jeunes frères jusqu'à 4 h du matin. Est-ce un maire inaccessible Non. Le maire est là et il est là pour sa population. Et il a toujours été comme ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, durant ces élections locales, les populations, lui, ont démontré que nous savons que vous n'aimez que Mbaké, tu ne travailles que pour Mbaké, tu ne rêves que pour Mbaké, nous allons te rendre aujourd'hui la monnaie de la pièce. Alors, en termes de réalisation, toujours, Mbaké, aujourd'hui, je l'ai même dit quelques jours, Mbaké est en train de damer le pion à Paris en termes d'éclairage. Plus de 2000 lampes avant le Magal. Tous les quartiers périphériques sont éclairés. L'addiction d'eau dans tous les quartiers périphériques ça aussi, je pense qu'on tenait à, donner ces explications aux populations pour qu'on sache que véritablement, on ne peut pas oublier, oublier, le sein et ce qui est en train de, produire le maire de Mbaké. Alors, toujours dans ce même siège, lors du dernier conseil municipal, il a été, il a été voté en son absence, celui qui attaque toujours le maire, puisque lui, il n'est bon qu'à la parole. Abondance en parole, et stérile en acte. Bara qui n'a jamais, qui n'a jamais acheté un petit ballon pour les jeunes du quartier. Bara qui n'a jamais rien fait pour la jeunesse d'Ambaké. C'est ce même Bara qui passe tout son temps à dénigrer le monsieur le maire. Alors, le compte administratif a été, le compte administratif 2022 a été voté à l'unanimité. Lui seul qui, comme je le dis, comme un, tel un lapin qui détale quand il y a une personne qui a des arguments devant lui, il est sorti de la salle sans pour autant attendre. Et les gens ont vu que dans beaucoup de municipalités, les gens passaient tout leur temps à réclamer le compte administratif, ce que le maire a fait. Et nous lui en félicitons. Alors, il a aussi évoqué, toujours le même menteur, que qu'il y a un problème de partenariat, entre, de problème de collaboration du moins, entre le maire et le mouvement associatif. Alors, comment le maire qui a un problème de collaboration avec le mouvement associatif peut choisir comme directeur de stade celui qui dirige le mouvement associatif en en Rassoul en en en comment je en l'occurrence monsieur Rassoul monsieur Moussafa ceci démontre encore une fois le manque d'objectivité de de de Lamine qui pour qui qui n'est bon quand il s'agit de salir et de dire de raconter des contre-vérités sur le maire alors pour ce qui est de Lochan ça aussi, il faudrait qu'on l'éclaircisse. Parce que je pense que le maire a trouvé un partenaire dans le cadre euh, sociétal d'entreprise. Cette entreprise Auchan qui vient d'installer, de s'installer, le maire l'a même dit en conseil, n'a pas traité directement avec la municipale. C'est-à-dire que les 30 millions en question dont il ne cesse de, parler n'ont pas été virés directement dans la caisse de la municipalité. C'est-à-dire c'est l'Auchan qui trouve son propre entrepreneur la mairie ne fait que superviser. Donc si aujourd'hui l'argent était dans les caisses de la mairie, donc il pourrait peut-être passer tout son temps à baver, à râler, à faire tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut savoir raison garder. Le maire n'a même pas besoin des 30 millions de la municipalité parce qu'on l'a vu à maintes reprises de, comment dire, décaisser son propre argent pour venir en aide aux populations de Mbaké. Les chauffeurs peuvent nous en témoigner. Lors de l'inauguration de euh, du, nouveau garage. Il leur a remis 5 millions. Ceux qui étaient délogés là, juste près du chemin de fer, il a sorti son propre agent pour les appuyer, etc., etc., pour ne citer que cela. Alors, et en ce qui concerne des activités, et là, c'est là où je voudrais véritablement interpeller M. Baragay. Barra, s'il a vraiment quelque chose dans sa culotte, si vraiment Barra est un homme, si Barra est un guerrier, Barra n'a qu'à convoquer une manifestation politique. Mais qu'il convoque ses militants, qu'il démontre à l'opinion que véritablement Bara n'est qu'un beau parleur. Bara n'est qu'un baratineur. Il est en train de dribbler, comment dirais-je, euh, la direction du parti. Il est en train de dribbler la, coalition. Parce que Bara n'a même pas cinq militants en baquet Monsieur le maire est le seul, et je le dis et je réitère, est le seul leader capable de mobiliser toutes les forces vives de la coalition ici dans le département. Il a démontré en un soir, en un soir, il a rassemblé plus de 16 000 parrains pour le candidat Amadouba. Aujourd'hui, qu'on ne se le cache pas, si Bara a une veine, a une haine viscérale à l'encontre du maire, ou bien s'il y a des nodis dans agissements, qu'il nous le disent, parce que le maire est en train de travailler, le maire est en train de mobiliser une base, le maire est en train de porter un discours pour que les gens sachent effectivement que élire Amadouba doit être un sacerdoce, mais c'est une opportunité, c'est une aubaine pour Mbaké. Donc, de grâce que Bara arrête. Parce que nous, nous avons pris nos responsabilités. On ne va plus le laisser continuer à traîner, comment dirais-je, dans la boue cet honnête homme qui travaille pour Mbaké. On déclare personnellement non ici, dans la municipalité et dans toutes les activités politiques, jusqu'à ce qu'il s'abstienne de dire et de raconter des contre-vérités. M. Galoba est un travailleur. M. Galoba est discipliné. M. Galoba est social. M. Galoba est toujours à l'écoute de ses populations. Qu'on le veuille ou non, c'est c'est la porte d'entrée ici dans la commune de Mbaké et dans le département de Mbaké. fii ci commune u Mbacké nekk ak sama naataango yi nga xam yalla dafa dogal tay ji ñu am ben lu ñuy dénoncer comme quoi que amna ko bok ci ñun ñukoy wax Lamine Baragay di adjoint bi mujj ci maire yi ñu wax 7e adjoint bon ñukoy xam ñop ñu ngi koy xam ci plateau yi grand plateau muy wax di défendre Benno bok Yaakaar mais li nga xam ni moom la ñu bokk fii muy commune Mbacké nga xam ni conseil municipal li doxal dëkk bi ñu ànd ko ak le maire Galoba moom da cee des ginnaaw amalul dëkk bi njariñ parce que conseil municipal boo xamante ni nii tey nga ñëw beneen yoon doo ñëw te boo ñëwee doo toog ba conseil bi jeex mënoo xam li ñuy nasa ka nocc waaye bu corriger jotee mu ni moom day corriger te moom la ñu war a corriger pour corriger ko nag mooy monsieur le maire Galoba mu ngi am taxawaay bu dëgër ànd kook conseil municipal yi nekk sama gannaaw ñun ñoom ñëpp ci loo xamante ni ñun mën nañ ko seede que ni mi ngi bëgg a jëmale dëkk bi kanam ci tànk yi mu tegagum ñu ngi ko ciy jàppale. moom Bara Gaye nag siisu na ni du ànd ak moom parce que réglement de compte bi mën nañ ko jàpp ni acte politique lay def defe na ni fi mu nekk nii fi Gallo Ba ne muy ministre de la République war na faa mën a nekk. mais dafa wara tok ci plateau yi pour yegal làmbañam ak kàddoom ba diar ci escalier pour yek loolu ñun lañ dul nangu ñun en tant que conseil municipal mu ñuy jël témoin donc comme li muy wax moy toujours euh, gestion dëkk bi ni muy doxee munu ci wax ni li dafa soxé parce que ben détournement financier amut détournement objectif amut li fi am ñing koy gis transparence mu ngi am ci gestion bi mi ngi koy jaarale fu mu wara jaar ñi ngi koy gis ñu ñi mën koo témoin moom nag mu lànk ni du témoin loolu parce que maire dafa sooxe population bi yëpp a ngi koy jooytu loolu muy wax waxu dëgg tama ko yàgg xam nag ci ay fen fen yooyu muy fen nag bu fekkee dafa fen ba ñeexam saf yàpp mu defe ni loolu ci la amee post directeur bi mu am mu jàpp ni fi mu nekk nii bu fenaatee ni rey na aw nag ñu jàpp ni rey naw nag reyu fi dara te warutul nekk koo xamante ni ñun ci suñu dëkk bi dañu koy jàpp mu nekk di def ñu escalier di jël aw turu Mbàkke di ko mbubboo parce que japp ni mom mom mo xam ñi fi nek xamuñu amaluñu njëriñ pour que ñu taxaw tay ñu mëna wax ni ñun conseil municipal bi nga xam ñun la jël témoin ñun ñoo taxaw wedd ni limi wax amut mom nak bu fekkee limi wax japp na ni amna yeen journaliste yeen yi témoin na ñew dajale juroomi conseil municipal yu and ak mom ci lolu mu taxaw démentir li ñu wax parce que ta ne parce que ñun xam nañ ni chaque jour ñu ngi ci dëkk bi di xëy ak gont di dem ci xew yi di dem ci dëj yi dem ci ngent yi ak sunu tour di ko def mom nak dara dara defu ko ci dëkk bi par rapport ak bu Gallo Ba yéene ñëpp dëkk bi pour que dëkk bi am ay poste direction yoo xamante nii waa doomi dëkk bi danañ ko doon muy ñi war a nekk directeur ñi nekk ministre wala député wala leen yéene na ko ñëpp kon yi bool ko na ci ñu ko yéene mais kun ko yéene nag boo ko xasee ba téye da nga war a amal dëkk bi njëriñ mais pur fi tey jii ñu taxaw di wax baara amalu ñu njëriñ léegi nag li nga xamante ne ni nag moom la bëgg di attaquer suñu gestion bi ni maire bi ko jiite fi mu nekk baaxut li muy dox ñun loolu gisuñu ko tey gisuñu ko ëllëg na bàyyi di jël témoin ci ay fen yoo xamante ni li muy wax dara amu ci ñun tey dañoo taxaw nag bu waxatee benn ñu wax fukk ci fum ko jaar rek wax ñu wax fukk li ñu mën a wax daal mooy dëkk bi programme yi nga xamante ni maire yàlla dogal na am na ko ànd ko ak état Sénégal rawatina président Macky Sall ñi ngi koy ñaan moom la président de la République galo li nga xamante ni moom la sumb ci dëkk bi te état di ko ci jàppale nañu gaaw ci projet yooyu mais lu weesu loolu maire mu ngi doxal ànd ak population may ñëpp jàmm ñëpp may war koo may jàmm baara nag taxaw ni du ko may jàmm léegi nag baara moomu nag ñun moom la ñu bëgg wax ni ko nag doo dara boo ñu bëggee xañ suñu jàmm ñu xañ la sa jàmm waaw loolu daal moo nekk loo xam moom lañ amoon luñ siy wax